jërë ngeen jëf dal leen jàmm ci yéenekaay yi fii ci Thiès 24 dañu koy dooree ak laas yéenekaay xëy fësal ci xëtam bu njëkk di xamle njeexentalu bay bayal bi di département fleuve Sénégal bi lee def ci biir gox yu nekk ci noor mu di loraange yu bare te di law naka waral ñi seen xel màcc ci wàllum écologique càmmat àllam gi taxaw seetlu politique de prévention yi nga xamante ni état bu Sénégal daal dina koy teg ni daal deesu ko càmbarat bu baax a baax ndax situation bi daa mujj ëpp loxo docteur Bakary Fati DGPR moo ngay xamle ni depuis bu ñu tabaxee barrage de ba léegi ni lii mësuñu ko fee nemmeeku ndaxte oto ndox bile dafa jéggi dayoo yéenekaay bile di xamle kuréel gi di OMVS organisation pour la mise en valeur des fleuves Sénégal ya ngay alerté ci suuf ci tolluwaayu ndox bile ci naka noonu ministre bile di Cheikh Tidiane Dièye daal li nu mel ma ngay commencé évoluer jëm ca Saint-Louis le quotidien moom xëy fësal ci xëtam bu njëkk Amadou Ba ak Ousmane Sonko di xamle di xamle seen débat bile mu mel ni ko commencé na ndaxte kii Ba dafa jàpp ni débat bi dafa war a porte ci pàcc yëpp yi nga xamante ni moo ëmb doxalin bu bon bi mu yoroon wàllum gestion Sénégal bi bu na ko tuddee rek ñëpp raf seeni làmmiñ ñoom ñaar ñi jokkalante ay kàddu waral journal bi la duppee ko Amadou et dispose à discuter journal bi di enquête itam loolu la xëyee di xam ne jàmmaloog ñaari kàngam yi di Amadou Ba ak Sonko te baabu nar a neex fas yéene dox si diggante ñaar ñi nga xamante ni kenn ki xelam ndaa màcc ci wàllum gestion keneen ki di juriste contestataire mu doon wàllum yoon ak priorité électeurs yi ci 2024 bi lee ubbi les échos xëy dikk ci pal gi ñu pal Samba Ndiaye mu nekk PCA Sen Aslam wala ñi bare ci membre Pastef yi taxaw di ko naqarlu mu mel ni ki Guy Marius Sagna Waly Diouf Bodian Abass Fall Tahirou Thiam Sadikh Top ñi daal d'accordu benn yoon ci pal gi ñu pal Samba Ndiaye ndaxte dañoo jàpp ni yëf yaa ma neex la waral ñu amal pétition ni ki démb boo xamante ni 23000 personnes daal dinañuy signé avant 2 heures di Samba nga xamante ni d'accord ci nomination bile Moustapha moo yoroon seen kàddu ni daal ñi d'accordul ci nomination Samba Ndiaye bile bëgguñu lenn lu dul yàkkamti defete Diomaye ak Sonko ni daal ñiy critiquer Samba Ndiaye tolluwuñu fii te Sénégal nag du royaume dañoo war a xam ni yu votel Diomaye président du ñoom ñëpp bokk Pastef l'exclusive moom daal dinay fësal ci xatam bu njëkk transhumance yu ñu nemmeeku ci biir réew mi mel ni ki tuleek man ñu dëppek Macky Sall lanu woon waral yéene kaay bi ab laaj ñi ñii di transhumé moom dañuy uti opportunité pour am ku leen aar wala seen bëgg-bëgg jëmale ci développer Sénégal moo leen tax a jóg ci diwaanu Thiès nag Thiès dina ko xamal langue politique bi mi ngi commencé laata campagne électorale bii di door dimanche bii di ñëw loolu nag am na ñaari kàngam yu nekkoon ci benn bokk yaakaar jóge nañ fa fas yéene jàppale li sa passé ci élection ñaareelu nag ma euh, tëralee mouvement la marche et le développement des territoires de MTT nee na nag moom bis ni ki ci élection législative yi nu jëm mouvement ak ñooñam li sëppa seefi la ñuy jàppale kakafeelu di Talla Diagne ci meeru Thiénaba moom tamit bokkoon ci Benno Bokk Yaakaar nekk ci ñaareelu mandat am ci commune Thiénaba moom tamit woo ay ñooñam dajale leen def ay déclaration xamal ni Pastef lay jàppale ci élection législative yi ñu dëgmal jàkkaarloo bu mu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi lee Talla Diagne xamle ni ni daal jàppale bu mu jàppale Pastef warta bett kenn ndax moom naka jekk ni da daan wax ni ginnaaw mer la yor nombal tànk waa gox bi teg ci kawam du kontoon nguur ndax nguur rek moo ko mën a jàppale pour mu mën a liggéey gox bi lee